وصل وسلم على حبيب الله الحمد لله أنا أنا يجي سما بعد الحمد لله just wait until ba moteur bi tàng tuuti ñu ngi sant yàlla beneen yoon ci dajee biñ dajee fii ci barabu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir waxtaanee yonent sallallahu alayhi wa dara ëppul teraanga yàlla may la nga ñëw ziyaar si yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam démb jàngandoo nañu téere biñ bind ci fadaailu madina al munawwara di arbauna xadiida fi fadaili nabi te Madina nag nga ne lam yëpp ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jiitu yonent bi Yaxriba la tuddoon lu jiitu yonent sallallahu alayhi wa sallam moo dëkk yëpp a wala dëkk yu bari sax tane ko ndax feebar yu bari yu fi amoon yonent duggee nag la mel ni mel na ñu ngi sant yàlla ci yonent boobu yonent ne ci dëkk bi ñu ñëw fi waaye ñu ñëw fii ci jamono ji nga xam ne mooy jamono jëm juddu sallallahu alayhi wa sallam bu jamono jooj ñëwee dañu war a fàttaliku li ñu sama borom wax ne nañ ko fàttaliku wa zakkirhum bi ayyaamillah yàlla moo ne yonent fàttali leen bés yàlla yi bés yàlla yi nag benn ëpp ci bés bi nga xam ne ci la yonent sallallahu alayhi wasallam feeñ ndax li ñëw yëpp kat gannaaw ga fruit la rek ci li xew bés boobu li ñëw yëpp ci ginnaaw ga fruit la ci li xew bés boobu yàlla sama boroom moo ñëw ci alquran qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu waxal ne bu ngeen dee bëgg na ngeen bëgg ci ngëneelu yàlla na ngeen bëgg ci yërmande yàlla na ngeen bëgg ci ngëneelu yàlla na ngeen bëgg ci yërmande yàlla yërmande yàlla nag mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ci alquran wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ñun de yónni wuñ la dul nga yërmande ñeel ñëpp waaw loo defee nag da koy fàttaliku boo gisee Sidi Ahmed Tijaani radiyallaahu anhu daan wax ne bu mawlid ñëwee na ngeen jàng xamsatu xamsiyatul imaamil Busiri ndax téere la boo xam ne lépp tagg yonantu la waaye lépp taarix la ndax bu dee téere bu mel ni burdatul madix téere bu yéeme la waaye takk moo ci ëpp taarix takk gi nag dafa rafet ba mu moo tax ñu di ko jàng moom tamit ci ndigalu Sidi Ahmada Tijaani waaye képp kuy jullit nga xool tagg bi mu tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam di nga fonk téere boobu bu gàmmu ñëwee nag bu ñuy fàttaliku yonent sallallahu alayhi wa sallam dañuy fàttaliku juddoom dañuy fàttaliku jikko ñaar yooyu rekk nag lañ soxla ci gàmm dañuy fàttaliku juddoom dañuy fàttaliku jikkoom yonentu bi mu juddoo ni mu rek sallallahu alayhi moo wane ki juddu kan la imam Busiri wax na ci Buhratul Madih ne abana mawliduhu an tibi unsurihi yaa tiba mubtadain minhu wa muxtatami yowmun تبرس فيه الفرس أنهم قد انظروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam li xew ci juddoom moo lay wan ki ñëw kan la guddi gi yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddu benn buur fanaanut ci la benn ndax ki nga xam ne moo ñëw ngir daane bépp nguur bu nguuru yàlla agsi na buur bu toog ci lalam rek lal ba daanu ñu defaraat mu daanu ñu defaraat mu daanu ba mujj ne ah yàllaay buur dañ jàpp ci yàlla bon sariiru kulli malikin baata mun akisan wala saara mun akisan benn buur fanaanul ci na loolu benn signe imam Busiri ne wa baata iwaanu kisra wa huwa munsadicun ka shamli ashaabi kisra gayra multaim kisra wax naa leen démb ne kisra dañ koy woowee képp ku mos a moom dañu am benn palais royal bu nga xam ne lu ëpp junni at tabax biñ ko tabaxee fett sax du ko def ndax dëgër yu yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddoo nag guddi fukki toj toj la balcon yi toj ak ñeent ba mu xëyee loolu jaaxal buur bi gént